mbir yi la ñuy desandi euh, ñoom science ak ñoom seen bijou euh, gëstul ñu li ñu euh, tuddee gravitation yenn saa yi nga seetaan documentaire moo xaw a compliqué noonu mu bulbulee ca kaw te ñun ñu ne ci benn bul bi muy tourné ñu ñu koy wax c'est des trucs qu'on ne comprend pas mais à chaque fois comme j'ai dit tantôt bi je def ci reportage ba ñëw on se rend compte que c'était pas sorcier pourtant voilà c' était pas <laughs> sorcier et comme euh, professeur Cheikh bi ma rencontré démb mi ngi may wax que yu ci bëri mën nañ ko expliquer par la science et même religion bi ak science bi. parfois mhm, mhm, mhm. dañuy dem ba moom parfois di nga am sax problème bu fekkee da nga nekk scientifique nekk jullit mais souvent. da ngay dem ba finalement thèse scientifique yi dafay daje ak euh, li nga xamante ne dina daf ko expliquer. d'accord donc aujourd'hui on parle de la loi de la gravitation bi nga xam ne Isaac Newton moom Euh, gravitation comme force bi nga xam ne moo responsable ci bu dara boo ko tegee ci air bi mu wadd force bi nga xamante ne mooy permettre planète yi di tourner autour du soleil mm. euh, ak tourner autour de même euh, d'elle-même sans pour mu am benn collision kenn du jaxasoog sa morom c'est très bizarre mais parce que planète yi wala soleil yi wala corps bu mu munti nekk que mu nekk ñaari stylo suñu jàkkaarloowee nii ku ci nekk da ngay exercer ci sa moroom benn force boo xamante ne ñoom ñaar ñoo tolloo uh-huh. donc dañuy xëccante force bi euh, naka lañ koy calculer ban constante de lañ ciy dugal mu tudd constante de gravitation euh, lan lay jëriñ sur la vie de tous les jours professeur Cheikh Sène indil nañu ci ay leeral ñu xool ko ñëwaat euh, ñaari affaire lii ma téye nii bu ma ko bàyyee fan la jëm dafay wadd parce que ñun physicien dañ bëgg lu ñuy wax mettre ko d'abord en évidence deuxième chose tàmm nga di seetaan télé peut-être nga gis dans une navette spatiale les cosmonautes bu demee ba ci jaww ji ci kaw boo leen gisee ci biir seen navette buñ jógee dañuy mel ni luy fay ci kaw ci jaww ji ñaar yooyu lay njëkkee pour mettre en évidence euh, gravitation lii bu ma ko bàyyee lu tax muy wadd parce que la terre daf koy xëcc boo jëlee ñaari objet yooyu jël maanaam li ñuy wax la loi universelle de la gravitation ça veut dire que ñaari objet yoo jël dañuy xëccante y une force d'interaction force boobu mu ngi dépendre ci maasu ñaari objet yi mu ngi dépendre par ailleurs ci distance bi séparé ñaari objet yi loolu moo distance boobu mu dépendre plus distance bi ngande plus doole jooju dafay wàññeeku on di que c'est proportionnel à l'inverse du carré de la distance qui les sépare loolu waral benn objet bu suree suuf si dañ naan dafa nekk en état d'apesanteur parce que doole jooju puisque distance bi dafay dafa ngand doole jooju dafay presque nul donc la loi universelle de la gravitation mooy loolu ñaari objet yoo jël dafa am benn force d'interaction bu nekk seen diggante maanaam dañuy xëccante doole jooju nag mu ngi proportionnel au produit des masses et proportionnel à l'inverse du carré de la distance qui les sépare c'est ça la loi de la universelle de la gravitation importance am bëri na bu dul woon loolu tey euh, planète bi ñu nekk suuf suuf si du nekk di tourner autour du soleil Si la Terre tourne autour du Soleil, c'est grâce à cette force de gravitation. Les satellites artificiels qu'on envoie dans l'espace, qui se mettent à tourner autour de la Terre, c'est dû à la force de gravitation. Le phénomène des marées peut être aussi expliqué par la gravitation universelle. Donc, la gravitation, c'est extrêmement important. La cohésion que l'on a La cohésion des astres et tout que l'on a, c'est dû à cette force de gravitation. Cette force d'interaction entre deux objets, dafa proportionnelle au produit des masses. dafa dépendre ci produit ñaari masse objet yi ak inverse carré distance bi séparé ñaari objet yi maintenant le coefficient de proportionnalité boobu ñuy wax mooy la constante universelle de la gravitation maanaam c'est un coefficient G moom lu ñuy wax constante universelle de la gravitation constante boobu nag en fait c'est c'est même pas une constante G dépend dafay dépendre ci altitude du kii bi altitude du corps bi par rapport à la terre enfin dans le cas particulier du poids parce que le poids d'un corps est un cas particulier de force de gravitation Donc pour mettre ça en évidence, euh, euh, l'exemple particulier du poids. Dans le cas du poids, euh, constante universelle boobu ñuy wax G dafa dépendre ci altitude bi séparé corps bi ak terre bi bu fekkee corps bi nga considéré et au voisinage de la surface de la terre valeur boobu G di am mooy valeur wu neuf quatre-vingt-un bi ñu yomb di utiliser maintenant au fur et à mesure que corps boobu di sori terre bi évidemment distance bi séparé corps bi ak ak terre bi c'est égal au rayon de la terre plus altitude bi d'accord donc corps bi bu demee ba nekk à l'infini sori trop terre bi ça veut dire que z boobu altitude bi dafa approché de l'infini à ce moment on est en état en état d'apesanteur donc cette force est quasiment nulle ñu doon déglu professeur Cheikh Sène chef département physique euh, bu euh, bu laalante gi ci ñaari corps ndax seen diisaay loolee xam naa physique la c'est souvent compliqué euh, bii diis ba le diis te du ñu mën a laalante wala ñu mën a laalante c'est toujours compliqué comme il l'a expliqué bi je expliqué ko sànq nga bàyyi bi mu woddit loolee ci yooyu la bokk alors diggante bul yi nekk ci kaw noonu mu bul bulee noonu te du ñu mës a laalante ñu koy gis ci ay documentaire c'est grave c'est grave mais ku ci nekk da ngay exercer ci sa moroom benn force boo xamante ne ah, attraction boo xamante ne leur valeur est égale ah. donc loolu moo tax ñuy wax loi universelle de de la gravitation qui dit deux corps ponctuels de masse respectives MA et MB s'attirent avec des forces de même valeur ah. mais euh, de mais euh, vectoriellement opposées et c'est proportionnel à chacune des masses et inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux corps. donc force boobu direction mooy droite bi nga xamante ne mooy jàll entre ñaari force yi d'accord donc que ce soit ñaari nit yu taxaw ñaari ñaari téléphone yu ñu téye nii ñaari planète yu nekk en face planète terre bi ak soleil bi. loolu moo tax du ñu dem di mbëkkante. Ah. donc ku ci nekk da ngay exercer ci sa moroom benn force boo xamante ni seen force égale et ñun ñu nekk sur terre euh, la terre exerce cette force sur nous même ñun dañuy exercer même force bi loolu moo tax nekkuñu en apesanteur. d'accord suñuy dox du ñu nekk di naaw comme boo nekkee dans l'espace. parce que ci espace euh, bi muy wax égal à zéro voilà finalement force bi nga xamante ne terre bi ko war a exercer ci yow day nekk égal à zéro. day boo gisee espace boo fa nekkee léppay nekk dina nekk en apesanteur. ndox bi da ko këpp au lieu mu tuuru comme fii loo yor mu wadd ci kaw lay nekk di flotter donc c'est ça qui explique stabilité bi ñu am cohésion bi ñu am sur terre autour des planètes c'est grâce à la force de gravitation merci merci merci voilà merci. ba pare démb dañ ma dama leen interview ba pare ñu taaj ma di ma interroger. yaat quoi <laughs> ci liñ ma wax donc merci beaucoup. mu ngoog professeur ak yeneen prof yi merci yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax je rappelle que mu ngeen amaat replay yu physique boobule bi ju waxtaanee euh, ak waa euh, département physique bu université Cheikh Anta bu dakaar on retrouve